jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet Gaston Production mbokk yi tey nag ñu teew fii Géejawaay si góor yombul tisi palaasu maam góor jël si ki nga xamante bi nii xaritam la booyam la léppam la muy ñaabu ndaw fas yéene waxtaan ak moom si làmb moom nag daa mel ni takk jabar bi ah dégg naa dégg naa ñu ne takk na jabar waaw loolu nag dina ci indi ay leeral ñuy nuyu mbokk internet yëpp nag di leen jox seen wàccuwaay rawatina ñi abonné ci Gaston Production di leen wax ne leen ñi ngi waajal incha allahu rabbi la 14 mais si diggante Franc ak forsa Serigne Ndiaye numéro 2 ak Eumeu Sène Junior Doudou saane ak Ablaye Diop ak yeneen combat yaakaar naa ne gis ngeen entraînement gis ngeen interview bi ñu def ak Franc def ko ak Serigne def ko ak Eumeu ak ki nga xamante bi ni mooy Forza ñoom nag def nañ ay entraînement entraînement yooyu incha allahu rabbi dinañ leen ko tegal ci Gaston Production ñu ànd ak yéen liggéey bi bu baax a baax a baax ay ñaa bu ndaw a ngi nii doomu ndeyu Siteu 2 sama copain bi <laughs> bala ma nuyu Siteu lan lay jaay. Siteu. Siteu la lay jaay. non Siteu affaire lay jaay. <laughs> mu tudd. non Mbour Anta maa <laughs> lay ziar. maa fay ginnaaw ba sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di nuyu borom daaru bu baax a baax baax suma papa suma kilifa. di nuyu waa Sikori di nuyu képp kuy bàyyi daaru di ñaanal sama papa fu mu tëdd. yàlla ko yàlla yërëm xaare ko àjjana suma waaw maa ngi ne ma daal maa na ne sama carrière bu baax. maa ngi koy ñaanal bu baax moo Cheikh. doon toog sama cumbukaay bi. waaw maa ngi ñaanal bu baax di ñaanal yàlla yërëm leen xaare àjjana. Ahmed saw doomu jàmbaar suñu xol ak suñu xel du mës a jóge si parce que lu doon tey ba mat ba nekk mbër rek maanaam moom dugal na sa loxoom quoi. te tey neex na fekkewu ko Amet Sow doomu jàmbaar man ñaam maa ngi lay fu ma toll. waaw sama waay la. am ñaan naka koor gi ak entraînement koor gi waaw koor gi mi nii rek man moom weeru koor moom du ma du ma entraîné moom. lu tax lu tax loolu. non woor julli xam nga noppalu waale quoi parce que man moom 15 jours sax mën naa am doole su ma neexee. Hmm. waaw. moom du ñàkk doole moom. noonu la demee la demee moo tax weeru koor xam nga dañuy relaxé rek. Hmm. bu ñu wooree xëdd yeewu nelaw. waaw ne si koor gi daal si koor gi nekk. concentré wu bu jeexee ñu dàq si tëggaat bés parce que ñun bu ñu commencé rek xamuñu arrêté. waaw waaw te day baax sax benn temps bi. ak coono yuy daj ñu dalluwaale bàyyi yaram bi noppaluwaale. Hmm. waaw bokkoo ci xadd tëdd yeewu ndogu. waaw ci laa bokk na armée bu lay def sa adversaire boo. maa ngi nuyuwaale mais ci laa bokk. <laughs> mais lan moo tax ñu leen di bàkke lool la. mais nga xëy di posé ay saa nangam ci loo xam ne lekkoo naanoo tam day metti ngay wër quoi. fa métti. am na solo tey tey yaakaar naa ne dañ la dalal fas yéene waxtaan ak yow ci làmb nga jóge ci combat bëre ki nga xam ne sa grand frère la laa ko mën a wax muy Moustapha Gueye def lépp si làmb nag macha allah ba mu ciy toll am doole mën a bëre daan fi ay ndaanaan yu bëri. nga jël combat bi nag ñëpp jam la baaraamu tuuma ne la combat bi nga jël waroo ko jël da nga war a jël say moroom danga war a jël combat jànq yi komba bu ñëw macha allah nekk baat ak tontu ba nga si jógee ba tey lu gars yi wax waaw dëgg la Moustapha Gueye numéro 2 su ma ko jëlee rek maanaam ku kuy waxal dëgg te yàlla rek tax rek nga nga nga wax rek sans nga bëgg a wax rek sans xasar nga bëgg nga nga bëgg a wax sans yàq rek xam ne ñaaw ndaw jëlul woon dem dem préparer Moustapha Gueye amateur yi fu ma doon mën a xasee wala sama morom mbër nga wax di xas maanaam ñaaw ndaw jëm jël commencé Moustapha Gueye waaj ko deux mois ñëw su boobaa mën nga ne ñaaw ndaw kat ah combat bi cam mm, mais comment boo xamante ne la daan doon a yàqu mën na doon a toog perte. ku ne xam nga mbërëg dundam nu mu méttee. yaa ngi gis moo naroon toog sama adversaire boobu gaañu xaw ma moom kañ la wér. ma toog benn contrat di ma tënk. tey bëri naa ko tey wàcc na ma jeex na maa ngi si leneen maa ngi sant yàlla. loolu mu dugal si Tafa Gueye numéro 2. mais ku la man ku xam-xam ne man daw ma dara. ba ma waree bëri sama morom bëri naa ñoom ba leen waree daan daan naa leen. def naa sama examen def naa sama bac. kon dama sama mag may chance mu bëri ñoom. ah su ma nee mag quoi mooy ñi nga xamante ni tey. grand frère grand frère yi parce que tey ñun lamb dañuy mobiliser ma sama combat bi passé billet 3000 la woon. waaw waaw benn bolo ko billet 300000 lay jar. Mhm. xaalis bi daa def si combat bi. macha sama adversaire indiwu fa dara lu waa écriam lépp maa ko def kon tey maanaam kooku dina bëre génn si làmb nga topp ko ay bëreel kii ma sama morom mu ma leen a jeexal mun ma jeexal sama ay morom mais dinaa bëri ak sama ay moroom ci kanam dinaa bëri ak sama ay morom. maanaam dama bëgg su ma bëri waxee sama morom ñu tëj stade bi. ok loolu laa man foofu laay waxee mais ñoom ñoo jàpp ni comme leneen la mais sama morom war nañ mën tëj stade bi comme soo ko faran. waaw loolu laa bëgg stade sama morom imaginer benn mag mais sama benn morom sens. beneen mag may ma sens. Mm-hmm. léegi kooku daan ma daan ñu jógee si kaw ñu war a bëree si kaw. Mm-hmm. moom day am lu mu yóbbu këram. man moom lu mu yóbbu sama kër. Mm-hmm. mais am na combat yoo xam ne suñ ko teelee bëri léeg kenn du gagné nobody kenn loolu la quoi mais gars yi jàpp ni ñaam mais man mën nga toog si toog sa micro toog fu nooy di tëkku ñaamu ndaw mais bis bu lekkee sama avance bu ma waaj ñëw nga xam ne ñaa waaj na. Hmm. damay waaj de. Ah, waaw <laughs> <laughs> macha am na solo léegi fi mu fi mu ne nii yan grand frère nga mën a bëreel si làmb. waaw grand frère yi ma mënoon bëreel ñu doon dox sama combat ak mobile 2 moom si moom la yàqoo xuma. nee na affaire mobile 2 de moo la mën moom. non ñu ko doon dox quoi. xam nga moom nee na xam nga fii rek affaire yooyu. mais bëgguma sax di wax si moom lu bëri quoi parce que xam nga rek moom temps yi. Ah, moom temps yi la. <laughs> temps yi moo ko taal. non kay man mobile nag ba muy am coow amoo coow booy. mais instant lamb xale lañ wax lamb ñu ñoo ko téye ñun xale yi. xale ba la booy la de. lamb mobile moom booy la waaye wax ko may coow sa la quoi. <laughs> la nante yi ñoo ko soxla daa war ñoo ñu garaaf géewaay la. est-ce que xam nga ne mobil 2 moom la amateur yëpp di xaar lambam moom làmbam moom du na xaar la imagine mobile tous jaar ne ñaamandoo tous doo jaar ne. non non yow nag li ngay tous ak li mobile di tous. waaw na loolu moom wax na ko. tey mobile wax na ko si live bi sa bàll nee na ñaamandoo eh. am ñaas day yëngal wax na ko si gémmiñam wax tontu ko. daraa ñëw fii géewaay seet sama ay ñoom ñoom laay naar seet sama ay mag tuuti toog comme weeru daa ñëw fii chaque ñuy teeweroo mais ñoom ñoom bu ñu bëggee ñëw fenn fi rek bàyyi rek ay Yékini junior exemple ko quoi ay ñoom euh, nu tudd sax keneen ki laay fàtte. fu mu dëkk Yékini junior ah ak ñoom ama neex ñoom bu ñu bëggee bëri ba fii rek bàyyi léegi pour ñeneen ñi ñëw day metti léegi ñoom la fekkee ñoom ñu may nit ñi chance comme ñu leen may woon chance après ñeneen ñi yéeg làmb ji mën a gën a gën a am escalier. Mm-hmm. mais ñun mu ñu bëree nekk fu ñu nekk dafa metti quoi parce que làmb xaalis moo koy def ak coono làmb dafa metti ñu jàppale booy quoi jàppale mbëri ñu bëri suñu biir ñu may ñu chance quoi parce que dañoo war a yéeg muy sama morom yëpp ma bokkal génération ku si nekk dangaa war a yéeg ci kaw ñëpp ma kenn dama lay ñaanal ñu yéeg ñu bëri si kaw am xaalis parce que mbër luy bor si ginnaawam dafa metti mbër mbër dafa responsable da ngay siiw ñu yaakaar yaa ngi lu jeex te lu yàlla xam doy na dégg nga ma booy nañ yeew nañu muus mm-hmm. am na solo mais ba tey da nga ne mobile 2 ak yeneen sa grand frère yi mais sa morom yi dama gis ne ba tey dese nga ci ay combat jànq dese nga ci ay combat yu neex parce sa morom yi ay ñoom Tafa Mbër ñi ngi fi ay ñoom Ada Fass ñi ngi fi ay Bulldozer mi ngi fi ay ñoom Talfa ñi ngi fi ay ñoom kii nu mu tuddati booy bii nii waay. damay fàtte turam boo yooyu yëpp ñu ngi fi ay ñoom bulldozer boo yooyu yëpp say morom lañ ay ñoom ond la fu boo yëpp say morom lañ amul amul problème boo yëpp samay morom lañ ñoom ñëpp samay morom ku ma si làmb boole ak yow dinaa bëri ak yow bul sonn instant kay amul làmb booleel da daa ñor waaw ci taxaw combat waaw combat bu taxaw bu ñëwee amateur bëgg ko sama sama staff bëgg ko na ma da ngay bëri combat ma dem bëri ko xam nga man rek parce que xam nga ñaamu loolu du ñaamu ndaw ñaamu ndaw dafa nekk dafa am derrière ñu ne si ginnaawam yu bëri maanaam jëmm ji toog nii tey mu dus ba faal kii tey kii sama mag la sama kilifa la soo bëggoon jël combat mu ne ma lii bul bëri de mu ko bëri parce que bu amee combat yooyu seen ko ci def parce que kat nekkul ñaabu nag mooy mooy décider mais suma ay morom ku ma si làmb boole dinaa waaj dinaa ku si lekk sama avance di nga xam ne lekk nga avance mbër dëgg bu la waa jàmbaar bett nag deuxième avance nag jox la beneen avance boo xamante bi ni Ada Fass non man mi ngi fi quoi waaw waxuma Abdoulaye Ndiaye non déglu ñu waxtaan ñaar dafa am loo xamante bi ni tey sa responsabilité Abdou moom danaa lay laaj ndax bëgg nga nga ne waaw ñu signé combat bi mais yow tamit Abdou Lahad du la jox combat boo bëggul tey jàmbaar production buñ la joxoon avance Ada Fass ne la mi ngi ni bu bëreeg sos bëreeg yow. non non non man tey gis nga tey maanaam tey euh, lu may wax rek ma làmb dama fi nekk pour bëre pour bëggal sama ay supporters. mais dama am staff dama am gét man dama am gétt dama am ay kilifa dégg nga ma. suñ la woowoon non damay bëri muuru Anta ñoom ñu woote toog non mu Anta ngay bëreel muuru Anta laay bëreel. waxu muuru Anta man Ada Fass laa bul wiiri wiiri dama laa laaj. waaw moom ñu jàllaat ci ñeneen waaw moom champion la dama ko. xanaa da ngaa ragal. non champion la man laay ragal si mbër. <laughs> jaaxal na man may doomu gunaas yi doomu banlieue juddoo si banlieue bi. moom muy doomu Fass xeetu jamono ah Ndakaaru dëkk si ghetto bi. non champion la dama koy ñaanal jàmm man du ma xas sama moroom mbër. ndaanaan la. du ko ñaanal jàmm bu baax yàlla defal ko jàmm loolu laa koy ñaanal. mais bu ma ku ma la am boole naa bëreeg yow. bu la boole woon ak moom. ku ma la am boole ma bëreeg yow Mour Anta. Hmm. waaw. ok bu la dugalee euh, parcelle nag am nga fa ñaari adversaire am nga fa Tapha Mbeur am nga fa Talfa. waaw mooy loolu. comme ma ko waxee moom nee na ma tapet nga. waaw amul problème. Eh, gémère bi mooy <laughs> boobu. ko waa rëm am rëm amul combat. rëm loo bëgg a wax léegi rëm pourquoi pas booy bu rëm dem bëreeg ñu ne rëm. tërëm di champion tërëm toog sept ans daanuwul ma ne daan ko tërëm ëpp leen ay victoire jël leen bàppa ma des ñoom léegi nga bëgg a tëb na ñaam noo ñaam mais dafa neex léegi quoi. mais loolu la yaa tal fa. wax laa wax de rëm maa koy nuyuwaal de passage dafa war a am lamb dafa war a bëre. na booy dem bëre ak moom. champion la dañuy wax si yooyu maanaam li ku nekk gis nga tey maanaam nga toog ngay tëkk mbër pourtant man toog naa ak benn jour yow yow tëkk Arafas. waaw ñu soppal ko nañ lu. maanaam yow ma qualifié mais dama continuer liggéey noppi. xam ne yàgg lañu merci mais toog fi nga toog ay damay daan ñaabu ndaw damay bëree ñaabu ndaw xam nga dafa yomb quoi dégg nga ma man fi ma jaar nañ fa dem jaar nañ dem daan rëm boo bis daan rëm boo ñëwee soo ñëwee ñu bëri mën a yow ku daan rëm boo ñëwee ñu bëri. mais Talfa yaa ngi nii du ko am. ku daan rëm ñoom laa ñoom noonu ngay wax noonu ku si daan rëm soo ñëwee ñu bëri maa ak yow. am na solo sa combat Kaakurain doon nañ ko fi dégg dégg naa yaa delloo avance bi avant muy bëree ndigal. loolu mosuma ko dégg kenn mosuma ko waxam. mu promoteur mosuma ko wax gars yi moto di hmm. kenn mosuma ko waxam. kaa de ñi xam ngeen ko yéen waa kenn mosuma waxee waxam quoi mais maa ngi fi daal maa ngi fi maa taxaw incha allah. sa combat waaw boo lapp lapp yëpp nañ si. Eh. ku si nekk di jël sa wàll xaj yéen ñëpp si xaj. su ma waajee rek ñëw ba dongali ba waaj dëgg waajagu ma de mun ànd eh. entraîné gu ma de non wóor na yàlla entraîné gu ma entraîné gu ma dara maa ngi la déggee numéro 2. macha allah waaw mais. léegi nag tey am ngay ah, waaw mais toog tëkk ñaaram doom yomb na ko waaw. Hmm. waaw mais mooy jafe. yàlla baax na léegi yeneen grand frère yu yu war a ñëw ngeen bëre yu bokkut ak say morom waxuma pas grand frère quoi. grand frère maanaam yow comme kan. grand frère yi comme ay ñu boo duggoon Fass ay ñoom général nga fa ay ñoom Baara Ndiaye jiitu la ci làmb def ay preuve ci làmb boo ñëwee caaro yi bari na am na ñu fa nekk. waaw amul problème amul problème man daal làmb bu ma xool xam ne lii làmb la ma war ko bëree dama ñëw bëri waaw. Hmm. amul am na solo fi may jeexalee yow yaakaar naa ne sa doomu géej waaye am na combat moom ak Eumeu Sène nan nga gisee combat boobu Balla Gaye 2 le 30 juillet. Balla Gaye ko ñaanal ndam rek incha allah ko ñaanal ndam ngeen problème yéen waa géej waaye di ko làmb ak rek moo ànd quoi. Hmm. di ko ñaanal ndam bu baax mu daan Eumeu Sène jël wu leer nañ wallaahi ñaanal. Hmm. mais combat boobu dina diis de bëri ngeen ñaari yoon am seen daan leen yéen waa Guèye. non xam nga rek làmb moom maanaam champion yàllaa koy def nit. Mm. waaw mais si benn mbër yàllaa koy def. am mm. seen daan na Balla Gaye mais taxul mu dàq bëre Balla Gaye taxul mu dàq gën a nekk Balla Gaye jàmbaar. Mm-hmm. lu Balla Gaye def si làmb si pendant diir bu ndaw ñun ñëpp kenn defu ko si you know mm-hmm. mais yàlla mooy maye ko waaye yàllaa ko may ne ko dina am si Eumeu kaw ñaar bu ndaw si kaw Eumeu ñaari ndam yàlla na fa yem. Mm-hmm. ñaanal Balla bu baax. incha allah. ba message boo koy lancé en tant que frère lan lay doon. waaw joob rek joob rek waaw joob rek ñoom nañ joob rek toog si tànk yi. Mm. parce que ñun ñooy seen i rakkat. te ñoom ñun bu ñu bëggee làmb ñoom ñoom la quoi. Mm. am na solo sa digganteeg fii ma la fekk tey maam góor góor yombul tisi. góor yombul tisi moom sama père la. lu ma nekk da ciy nekk lu ma nekk mu nekk si xam nga waaw su may jël combat sax dama koy woo téléphone. Mm. na ko ah gars yi kat ki lañ wax mun ne ma bëgguma lii lii laa bëgg. lii laa bëgg lee laa bëgg gis nga yu si mel ni ñooñu xam nga tey doo mën a fees seen gémmiñ na yow lii ngay def for force sama grand la suma lépp la mën naa ne sax suma père la ba ma ñëw fii woowu ma ko tàgguwu ma ko mm-hmm. yow mën nga ma seede yaa gis te nekk ko fi sax ñëw dama ñëw def sama émission ba pare def yoon waaw di nuyu waa la dëggee numéro 2 mm-hmm. di ko ñaanal ndam bu baax si combat moom si te waaw di nga koy ñaanal ndam bu baax la dëggee numéro 2 mm-hmm. waaw di ko combat boobu ñun ñun suñu combat la du ñu ko gën a bëgg moom moom du ñu gën a goree waaw làmb boobu suñu làmb la Macha day bëree le 29 yaakaar naa Apa Fall moom Magny Macha ñu ngi koy ñaanal ndam bu baax waaw su ma gënaa la su ma maa ngi koy ñaanal ndam bu baax a baax a baax mu daan Magny jëli bu rëy waaw ñu ngi koy waay bu baax làmb boobu làmb di si woo waa Gunaas di si woo waa Géeyawaay ñëpp ñëw jàppale Macha Macha doomu dëkk bi la na ko ñëw teg loxo Géeyawaay nañ bàyyi rek yaa war a nekk espoir yaa war nekk mbër nañ teg gaay loxo nañ si jàpp waaw jàppale ko si biir làmb dafa metti jàppale booy yi jàppale booy bi leen jàppale bu baax waaw. macha allah bala maa ñëw ci yow nga tàggoo di ma taril benn saar nag bu yeboo nga xalaat Baye Fall. maa ngi xam naa ne jàngu. loolu ziar ci loo ne. tawféex waaw. sa diggante ak ñaa. waaw ñaa suñu rax la. Mm-hmm. suñu xarit la suñu lépp la. Mm-hmm. dafa nekk ci koñ bi xam ma jox ñëpp cër. Mm-hmm. te dañ naan xale bu loxoom seetee day bokk ak ma ndab. waaw man looloo tax ma jàpp ko daal. te lépp lu def tamit xam ma dañuy jógoo ak man loolu rek respect la. waaw man maa ngi koy ñaanal tamit waaw ma ne dafa am lu may wax ci Jacob Balde. Jacob fan yi dañ koy dékki micro mu nekk fii di du wax rek. mel ni combat baa ngi noonu. waaw non moog ñaar du combat. Eh, Jacob waaw xaaral mu ñëw Jacob kan la fi daan. bëri na non yankaw yankaw ak kan ak bastonnaire ak kan ak kan mañi kayre daanu ko ay ay ay wàllu daanu ko yaa ngi dégg moom bëri fi adversaire bëri fi victoire léegi tey nii moom na dem jëli na na dem jëli rëm bu daanee rëm wala mu dem jëli mañi wala mu dem jëli kële nu mu tuddati sax armée bu ngéwal comprendre nga fii bëri na ay mbër moom na na bàyyi jékki-jékki ñu waxee mu naan ñaabu ndaw ñaabu ndaw moom avant ñu ko naan ñaabu ndaw macca lañ ko njëkkoon a jox moom nanguwul bëreeg Macha xam na booy géejawaay barki Serigne Saliou waa xaaral ma ñëw rek man loolu dama koo fekkee man yàgg naa ànd ak Macha man yàgg naa koo gis moom su ma ko nee jëlal avance Jacob Macha Jacob du wax sax loolu gis nga booy dañuy nekk fii di wax rek wallahi azim barki Serigne Saliou Mbacke laa lay waatal de booy géejawaay ñoo leen gën a oos fukki junni yoon ñoo leen dàq bëree ñii dañoo judd di bëre nekkuñu dañoo màgg rek jékki-jékki ne dañoo bëgg bëre quoi comprendre nga gis nga Macha maa ngi koy ñaanal le 29 bii mu jublu moo xam li mu bëgg yàlla na ko Serigne Touba defal jàmm may ko ndam lu seddu guy maa ngi koy ñaanal maa ngi koy ñaanal parce que moom mi ngi ci li mu war a nekk quoi làmb ji yàgg na trop. comprendre nga moom waroon naa jóge ci lii nekk ci leneen mais yàlla yàlla moo dogal loolu noonu maa ngi koy ñaanal le 29 avril mu daan jël bu rëy mais Jacob ci wàllu boppam na dem jëli yeneen mbër mu bëre mu bàyyi ñaar mi mu teg soog nii barki Serigne Saliou Mbacke xoolu leen sax kii am na solo eh, eh, yow Sakho Balde combat la grand bi nekk fii di wax làmb la. waaw kii moom ndeysaan moom moom sama waay la ñoom bëgguñu dara lu ma laal moom ko jëlee am lu metti moom. bëgguñu dara lu ma laal ñoom lu ne si xorom rek lay génnee nii <laughs> instant bi. waaw mais Sakho mooy loolu moom champion la dama koy dama koy ñaanal moom keneen bu rafet rek. Hmm. mu góorgóorlu quoi. Hmm. waaw man. Mour Anta man maa neex a faral di wax de. <laughs> Ah, moom tamit mooy neex a faral samedi ak dimanche. dama lay wax man mu guddee làmb de. Ah. doo guddee da ngay ñëw mu jeex barke du ma guddee làmb te du ma masi niil. bu adama damaa mën a bëre pire et dire. macha allah maa ngi nii mbëru banlieue treize mbëru banlieue bi mbëru jeunesse bi. waaw mbëru jeunesse baa ngi nii. am na solo daw ma loolu di nuyu jeunesse bi yëpp di leen ñaanal jàmm si koor gi. macha waaw di leen wax ni xam ma ñun ak ñun ak ñoom. Hmm. nii. macha allah waaw jeunesse la ñuy topp. am na solo topp ñu keneen. bala ngaa tàggoo. ñu ngi ci koor de ban saar nga mën a taril gars yi. saar moo tëj bëri na. waaw yow. ban ban nga ah, moom bi armi mun ma kaa tëri. de de waxuma faatee da nga may tari falaxe walla naasi. wala wala. xul <laughs> wallaahu axad bu naa la ko dóoree saar la. waaw saar la ban sóoratu la. ah saar la daal. ban sóoratu la saar la. naasi la wala lexlaas wala. <laughs> saar la. <laughs> mu bàyyi la nga tàggoo. waaw tàggoo bi damay nuyuwaat rek xam damay damay waat euh, Modou Ndiaye. dama koy nuyu bu baax. damay nuyu bunaa moom sama grand la quoi waaw non non bëriwul maa ngi nuyu bunaa ma quoi bunaa mm-hmm. borom Argentine. Mm-hmm. ah borom golf suma grand la. Mm-hmm. waaw am na nu ñu tënk mën ak moom. naa yàlla baax na. maa ngi nuyu Jili Ndeye Mar quoi na si jàpp bu baax a baax a baax a baax Medzo Waalo Amet golf. sama xarit la suma waay la maa ngi koy ñaanal jàmm bu baaxa a baax a baax góor yomb du ma ko gërëm Modou Ndiaye waaw borom feer yi naa xam nga naa la yóbbu ku mu jaayul feer baaxul ku mu jaayul feer ka tabax sa feer baaxul man ñaamu ndox baax baaxa moodu Modou Ndiaye koy nuyu bu baaxa a baax a baax mu mm. di nuy ñi nga laa foowandool ma mm. fiyaa dofi yi xam nga di nuyu waa pikin waaw dañ may bëggee di nuyu waa waa parcelle maanaam man dama ni léegi man ñaa ñaa partout la waaw di nuyu surtout di nuyuwaat jeunesse bi waaw jeunesse bi dama leen nuyu bu baax a baax di leen wax ngeen dala seen xel man dara foqul samay bët waaw gars yi ngi wootee fu nekk nag mais man jeunesse bi laay topp ma keneen ma jaay sama ngor man jàmbaar laa bàyyi daaru laa xaw ma loolu di nuyu jeunesse bu baax di nuyu waa koso bi yëpp Ablaye Naar sama booy ñoom tuuti seen kolobaan di nuyu ñi nga xamante ne wax dañu may jàppale bu baax a baax xam nga Ameth Touré maa ngi koy nuyu bu baax baax borom Ndakaaru mooy jaay foofu yére yi sama waay la day sonn si man xam nga di nga nii ñu may jàppale waat ñëpp ñëpp képp xamante ni rek mi ngi si man rek. di leen wax ñaabu ndaw takkul jabar takkul dara. <laughs> ah d'accord non poisson d'Afrique boo yoroon foo noonu rek di dugal affaire yooyu man làmb laay topp <laughs> làmb rek laay topp keneen ku yor sa marchandise muy leneen. Mm. téye ko. yaa ngi noos wala noosoo. non ban noos. Ah. lekk ay fruits yooyu. waxuma noos boobu de. ban noos. noos bi ma fi waxoon interview bi gars yëpp di ma woo. dama laa doon kuy noos yow. ah dama lay laaj. dama laaj ba xam noosoo. yow sa karaay yow mi yaay noos. <laughs> man soxna laa yor. <laughs> man ma noosee yàlla day gërëm de. di la nuyuwaat tam. <laughs> parce que parce que man heure bu ma bëree ba pare rek ba daan rek li ma njëkk a mooy li ngay wax. fa ma jaar. ñëwal. ca 2017. fa la 2017 5 5 mars 2017. loolu moo ko jaar. Euh, nu ta Boy John. moo ma daan. Euh, bébé Tafatine. ndeysaan. libidoor bu Passy. maa daan. R5. maa ko daan. Euh, nu mu tuddati Bulo. maa daan. Rëm. maa ko daan. armée bu Ngéwél. maa ko daan Tafa Gueye. dara bi xaaw boobu sarax la may naa ko amateur yi jarut bind garaawul. <laughs> macha allah macha mi ngi noonu champion la ndaanaan la yaakaar naa ne boo gisee. ma mën a wax fi mu jaar fépp bi mu duggee ci làmb daa yàggu jouru làmbam nag dañ ma cee dóor dóor yi métti moo tax dootuma koo fàtte 5 mars 2017 combat Boy Niang ak gi Gui police yi dañ ma cee jàpp door ma dóor yoo xam bi ma ñibbee sama kër sax réeru ma moo tax làmb jooju sax dootuma ko fàtte bi ma duggee nag fekk naa booy Jon daan ko ba mu dem ñibbi ñu delloo ko waa Guédiawaye mais boobu ba léegi nag. ma jooy jooy métti ma tegale huit victoire xuma. <laughs> macha allah boobu ba tey nag mi ngi ci dynamique de victoire teg la ay victoire yu am solo saa bu ñëwee ci làmb day def jom def fulla def fayda andi mobilisation bu takk bëre bëre bi daan daan bi dem ñibbi waaye nag ñi ngi xaar yeneen kombaam ak ay moromam wala yeneen kombaam ak ay grand frère am. gis ku bëre daanu ki tëgal huit huit waa dara kaay bëre ak man. waaw mais làmb tam dafa doy waar <laughs> gëm mu nekk benn muur a boo ñëw jënd làmb fekk muy gëmm gëmm doo ko jël làmb bu bi ngay jël noonu macha allah mbokk mi ngi noonu di leen jox di daje ba beneen yoon ci Gaston Production Khalil jëf